loolu la fu may mujjee nag léegi muy jaloog bi effectivement comme ni ko euh, professeur waxee vraiment CUDIS euh, euh, def na ci rôle bu mag a mag a mag mhm. dama ñëw ci beneen casquette mais comme en tant que vice-président du CUDIS mhm. mun naa ci wax parce que professeur évoqué na ko mhm. mooy ne liggéey na liggéey bu mag ci dialogue bi waaw de manière voilà waaw et puis président de la république euh, daje naa ak ñun trois fois. Mhm. Euh, presse bi génnewu ko. Euh, ci wàllu dialogue bi. presse bi génnewu ko génnewu ko tu vois waaw. oui mhm. oui parce que ñoo ko bëggee noonu parce que bu am na yoo xam ne diplomatie. Mhm. kenn du ko def ci ah, ñoo ko bëggee noonu. moo taxit it mu efficace. tu ci la ñu dem rencontrer parti politique yëpp. kuñ ci rencontrer envoyé nañ la message. Mm-hmm. wala yooyu mooy ñi ngeen di dégg ñii ñëpp muy ñoom Khalifa Sall ñoom Barthélémy Diaz ñoom euh, kii euh, euh, Ousmane Sonko woo kii nañ ko ñaari yoon jotuñu ko. Mm. xam na situation yi mu nekkoon la. Mm. mais ñoom Habib Sy tout le monde ñëpp ci dis mm. jot na la. Mm-hmm. wax naa ak yow. bi mu mm-hmm. waxee ak yow aussi delluwaat wax ak. kilifa réew bi ak yooyu ba ñu agsi fi ñu accédé donc loolu yëpp li ko indi kudus Euh, ma rappelé rek euh, marabu yi les les les confréries religieuses du mm. pays ñoom ñoo ko ñoo ko ñoo ko boot ak les associations islamiques représentatives yi nga xam ne ñoo fi nekk lu mel ni Ibad Rahman mm. lu mel ni RIS lu mel ni euh, conseil supérieur Chute Ahlul Bayt mm-hmm. ak forum islamique de la jeunesse ak les 112 de la Casamance ñooñu ñoom ñoo ko constitué ak des individualités de grand des universitaires ak yu demee noonu donc loolu moom mooy indi tey euh, dialogue bi am dialogue bu ñu nee ci démocratie essence bi quintessence bi c'est le dialogue mm-hmm. parce que li indi agora euh, dialogue la Périclès bi nga xamante ne ni def gis na ne développement intellectuel am na ci Grèce nga gis le mouvement des idées mm-hmm. bi ñu demee ci ci Égypte ci la ñu gisee liberté bi am ak égalité bi am foofu en Égypte ci lañ ko yóbbu Grèce bu leen fàtte ne Alexandrie une c'était une de la Grèce muy muy Égypte donc gis nga démocratie noonu la jógee muy ci ci terre d'Afrique fii ci Égypte mm. donc mu ñëw ak ni pour mu nekk loo xam ne dialogue lu à la place des guerres ñuy dialoguer